alaikum. c'est Dao Maximum artiste compositeur euh, directeur CACD euh, le collectif des acteurs culturels de Salam tout le monde, je m'appelle Assiette Chantal je suis artiste, chanteuse et compositrice, euh, administratrice culturelle aussi. Meram, papa mes titres C'est artiste rappeur from Duxoropol. Je Prince Léo Prince de la ville on na grand bi di ko déggoo biir temps yow sa. Euh, CACD mu rassemblé artistes yi nekk Diamniadio yëpp des comédie lépp euh, moo leen rassemblé. c'est une très bonne idée collectif euh, bi regroupé acteurs culturels de Diamniadio parce que déjà nous, en tant qu'artistes, nous sommes le vitrine boo nous ne daf ñuy de, comment dire collectif bu mel nii bi participer surtout suñu formation mais aussi dañu ubbi yeneen porte yu pouvoir rencontrer d'autres professionnels comme les artistes qu'on a rencontrés aujourd'hui pour pouvoir partager. di ko rafetlu te xam ne lii mooy jëmmal moy jëmmal moy jëmmal temps aussi mom moy yóbbu affaire ci kanam voilà li ma ko gisee mooy rafetlu ko kese la ko gisé di wax ne day gëna bolé tay fal Fall ak Cissé bi xamanté wu ñu woon tey xamante nañ tay xamanté bi rek mo ci gëna am solo. musique bi mën a gën a avancé te bëri na couleur yoo xamante man mosuma xam ne sa jëm ñaajo am na lu mel nii quoi voilà te genre yi ñoo ko mën a fësal. CACD d'abord damay rafet initiative bi di wax di wax ne dafa ñëw si moment bi nga xam ne moom maanaam moom la ko moom gars yi tëggee xam nga parce que bii que jëm ñaajo mën naa wax ne si côté culture kenn ëpple ko temps si si côté culture mais dama naan carrément xam nga gars yi dañoo tëju woon si benn ruxu quoi. à travers cette initiative mooy CACD bi xam nga tax na peut-être gëm ne ma gëm ne xam nga euh, li nga xam ne maanaam moom moo moo nekkoon problème mu culture Diamniadio dinañ ko résoudre quoi à travers CACD bi nii. CACD mën naa a Kano la quoi pour bu ñuy sotti si Kano rek. daa moom day tàkk jëm si kaw rek parce que loolu gars yi doon xaar comme li saa wax rek gars yi dañoo yàgg nekk seen fukk di xam nga li li mën naa suñu bëgg la quoi. tamit tax na ñu xamante ñu def ay affaire yu garaaw incha allah dinañ leen di ngeen gis ay résultats waaw. donc tey jii nag ñu defoon suñu euh, compilation non à la violence pour sensibiliser gars yi euh, bon gis naa ne son bi moom bon liñ ci bëggoon am nañu ko parce que déjà artistes yi ñoom ñëpp a ñoom ñëpp assuré franchement. man plaisir bi ma ci am mooy que ne ma ma ma séq ak benn projet ak ñu mel ni Santal ak Daaw Maximum ak euh, ak ak Fall Paradise. ak Léo ah ak Boy Bilixa doo war a xam nga dama neen carrément ku ma newoon xam nga jëm ñaajo am na talent yu mel nii biir jëm ñaajo man dama ko gëm quoi waaw parce que boo xoolee ku si nekk yaa ngi woon si di job kon donc bu demee bu ñu am projet bu mel nii taxawal ko xam nga yaakaar naa xam nga rek waaw lu ñu war a mën a sëlee la te rawatina mu nekk benn euh, thème boo xam ne dañuy dañuy wax si non à violence parce que ku xam nawetaan

déjà échanger nañ partagé nañ te jàng nañ c'est ça en fait surtout le but et aussi surtout sensibiliser par rapport à la violence aussi nawetaani yi ñuy tàmm di c'est très important et je dis chapeau. nice na trop gis naa tamit niveau bi tellement que dafa évoluer par rapport ak man li ma doon voilà bon le moment mën a wax daal juste mooy ku nekk na jàpp te bañ a bàyyi incha allah day déjà à yi ñu indi. yaakaar nañu ne ñoom dinañu mën a jëlee culture Diamniadio fu mu nekk yóbbu ci yeneen level te loolu lañu ci bëgg loolu mooy bitu CACD bi quoi. man li ma gis si section bi affaire bi naa sa trop parce que foogee ma ko woon lii quoi parce ñëwee gis xam nga ba mu njëkkee ñëw dugalu refrain xam nga may naan son fa la war a mën a kii quoi après gis moom suivi bi quoi bu ñëwee ma gis gars yi dugal affaire bi daf ma choqué quoi. voilà talent bi mi fi et tout. xam sélection bi bon mën naa la wax ne en groupe lañ ko defee parce que gars yi bon euh, boo xoolee euh, dañ doon proposer ay artistes soit euh, zone bu nekk ñu jël fa benn artiste et puis on a réussi à le faire aussi quoi. daal li ma si mën a wax rek mooy gis naa ni affaire yi mi ngi avancé bu baax a baax a baax ñi nga xam ne intéressé wu ñu woon ñu jëm intéressé wu te xam ne bëri na ay projets yoo xamante ni teg nañ ko. C'est gars même si euh, kanam tuuti le voilà. déjà collectif de kon mbooloo la pour des médiation déjà médiation on est, on artistes yi artiste des vitrines, mais aussi surtout par rapport euh, comme ce domaine domaine yëpp plus concerné ce n'est pas seulement artistes compositeurs Il ça concerne un domaine, que ce soit comédiens et autres donc je suis oo nous nous rejoindre ko pour nous représenter au delà de Diamniadio bientôt rek incha allah ngeen xaar lu rëy. kon gars yi comme ni ngeen ko gisee rek ñu waajal kii bi quoi projet bi incha allah léegi léegi. di wax gars yi nañu xaar di luura se prépare wala mën naa wax ne instant nii xam nga dinañu inonder Sénégal. damay remercier collective yi waa CACD membres yëpp di leen remercier di remercier artistes yi participer ci compilation bi euh, Bayzo Santal Fall Paradise Lil Xa euh, ak Léo voilà.